borom subhanahu wa taala laaj na malaaka yi dam leen laaj malaaka yi wax ko lañ ko wax wax da ngay def ci kaw suuf ñu fatu bi borom bi subhanahu wa taala ni a'lamu ma la ta'lamun man seen borom xam naa lu ngeen xamut te wax na dëgg mooy may xam xam borom bi subhanahu wa taala tànk na ku ñuy tuddee maam aadama ngeen ko tànk comme ni ngeen ko xamee ci alquran ndax jàngkat alquran ngeen min salsaalin kal faxsaar min xamain masnun ah ak min turaab comme ni ngeen ko xamee borom bi sàkk doomu aadama ci suuf ak ban ba mu ko sàkkee na suñu borom daf koo def melokaan wu mel ni état mu tëdd ñu defaree ko xat am pax yu ñuy tuddee bakkan am pax yu ñuy tuddee nopp am pax yu ñuy tuddee am lépp sën yi ngeen gis ñu tey aadama gudd lool rëy lool ponkal lool yéen ci yàlla aadama su rukooon fii su rukooon fii ndigg li dana laal lii ngeen fii lii ngeen gis ndigg li dana ko laal kon ça veut dire que aadama ñaari étage mën naa taxaw yootub loxoom jël la ca deuxième étage parce que yéen ci yàlla bi nee na yàlla dafa bind aadama ci melokaan wu mu ko bindee juróom benn fukki xasab sama loxo bi lii ngeen seen ca sa baaraam bii mu ñëw ba ci mbagg mi nga compte ñu benn ñu waat nii ñu ñaar ñu waat nii ñu ñett ba muy juróom benn fukki yoon noonu la aadama njoolee woon kon su ma nee la su rukkooyee fii ndiggal day laal suñu toiture bi loolu du nekk lu lay jaaxal yéen ci yàlla aadama bi ko yàlla tàccee bàyyi ko xam ko bàyyi teg iblis ma nga ci biir mbooloo iblis da daan ñëw yërndu xool yëngati xamul woon lu ci yàlla nam mu ndax mën ta xam lu ko suñu borom xamal ba suñu borom toogee ba mu toog ko ci coobareen mu roof ko ruux aadama am nañuy wax ay riwaay yoo xam dafa jóg mu daal gis ni bi mu gislee suñu borom yéen cee wax ko moo alhamdulillah suñu borom daal di ko fi yarhamukallah noonu aadama nelaw yow yàlla tàkk ci moom ci faar ak càmmoñam ku ñuy wax xawa am na riwaaye yoo xamante ni imam ibn mandel koy indi ci ab téeréem bu mu tuddee tawxid la soxna si daa toog ci teggam aadama yeewu gis ko malaaka nga daal di koy laaj ni ko waaw kii kan la mu ne ko sama soxna la mu ne ko ku la ko wax mu ne damaa xam ni man maa tax ñu sàkk ko pour ñu indil ma mu ne ko comme nu mu tudd mu ne ko Hawa la tudd Aadama moo wax loolu alayhi salaam seytaane nag di sa caram c'est le gëréen bu mag bi tàmbali ak doomu aadama nga xam ne sunu borom jël na jëmm joo xam ñu ngi ko bind ci ban te kiñ bind ci ban kiñ bind ci sawar daa jàpp ni moo ko gën suñu borom ni su jootal aadama malaaka yi su jot iblis bañ kon rëy gaaf ak rëy dugg na ko moo tax rëy musiba la joo xam ne képp kum topp xamal ni musiba dal na ci sa kaw noonu suñu borom subhanahu wa taala malaaka yi su jootal aadama iblis bañ keroog nag suñu borom def benn déclaration bu clair bu leer bu yaatu bu wéy ba àllaaxira mooy yow aadama kat iblis mi sa noon la ak sa njaboot maa ngi ñu ne sabal la àjjana waaye bul sàggan ba fala yuxrijannakum min al-jannati ashqa iblis def ay bërbërin wax naa damay taxañ rek di dem ndax loolu taxuma woon a jóg ak tàmbali la ba génne aadama ci àjjana xam ngeen ni lu garaawa ngoo parce que yonent yàlla Moussa alayhi salaam dañu aadama yow xanaa du yaay aadama aadama ni ko waaw mu ni ko yow yaay maam aadama mu ni ko waaw waaw mu ni ko yow la yàlla bind ci loxoom bu tedd ba mu ni ko waaw waaw te tàbbal la àjjana mu ni ko waaw waaw waaw aadama yow loo doon xoole ba génne ñu àjjana lu tax ngay xoole ba génne sa bopp génne ñu àjjana aadama ni ko xanaa di yaay Moussa mu ni ko waawaaw yow la yàlla wax ak yow mu ni ko waawaaw yow la yàlla bindal ak tawraat ak loxo boppam xam ngeen alquran yàlla da ko wax yi Jibril mu wax ko yonent bi tawraat nag téere bi ñu tuddee tawraat yàlla moo ko bind ak loxol boppam mu ni ko ah di yow la yàlla jox téere boo xam ne ci loxol boppam la ko bindee mu ni ko ahan kay mu ni ko ah aadama kon yow amul lenn looy yow Moussa amul looy def lu dul di ma yeggee loo xam ni yàlla bind na ko ci man balaa maa jub xanaa jàngoo ci tawraat yàlla mu ni ah aadama mooy na boromam ci génn bi mu génn àjjana ak lekk garab ga lekk garab ga mu ne ko waxoon tey yéen ci yàlla mu ne moo tax Moussa aadama daal di koy yéen ndax aadama daa tegtalu foofu wane ni yàlla dogal na def ko def bàkkaar bi comme sama yoon nekk ci déedéet aadama li mu ko bëgg a saxal mooy ah jëf ji jëf la joo xam ni jiitu na sama sama juddu waaye comme ak mooy la teg mooy doomu aadama santuñ ko ko du def ko la ko war mooy mu jéggalu moo tax aadama daal di jéggalu kon Moussa yeddeewul aadama génn gi mu génn àjjana waaye torox tànge gana dal ba ñu génnee la koy yeddee ndax ñu ngi nii say torox topp ci kaw suuf te àjjana daa ko seytaane mooma nag yàlla subhanahu wa taala wax nañu nañu moytu bu baax gis bu nekk dafay def ay jéego ak i mën-mën ci bërbëri ngir innahu yadoo xisboolu yakun min asxaabi saari moom moom xam na ni sawar lay jël li tax ba ko yóbbu àjjana bañ ko tamponné boobu kenn ci yéen a man giddoogul kon kay léegi li des mooy mbooloo man lay àndal dem sawar li tax ba ko yóbbu sawar yàgg na bañ ko ko signalé kon ku muy àndal dugg sawar lay yóbbu seytaane nag gaaw la te damay sax muslim len ci yàlla bi nee na fi mu nekk nii seytaane màggat na fi mu nekk fi ne ci àddina ci am ndox la mu jël piliyaanam teg ko ci kaw ndox mi su xëyee day yebal njaboot bi ñuy yàq ci kaw suuf rot na ci sunna ñun nit ki nga xam ne dafa toll ci sukuraat nga xam ne ay cert moo ko def pour mu dee yéen ci yàlla da ngeen seytaane day wax njaboot bi baaw leen lu ngeen man def leen ko ndax kii moom ay minute moo def rek mu rëcc leen su bu leen sotee rek ci ñàkk ngeen kon fa ñuy gën a defee doole mooy fa ngay sukuraatee ngir bëgg laa yàqal kon kii ku bon ku jàddi musulu ci moom seytaane nag ku gaaw ay technique yi dafay daw ci deret doomu aadama ci yaramam comme ni deret di dawee seytaane bu ñëwee bëgg maa yàqal man wala mu bëgg leen a yàqal wala yaadu billah technique bi muy njëkk a def mooy day fóon sa bakkan ma xam lu muy xeeñ déglu leen bu baax li ma leen di wax seytaane technique yu garaaw yal na yàlla soo dala boole ci musulman su ñëwee jéegoom bu njëkk bu muy def mooy lay fóon bakkan bi sa bakkan yow lay fóon xool lu muy xeeñ bu ko fóonee xet bi li mu koy xeeñ mooy jiwkat point faible am fii la point fort am fii la seytaane sa point fort du la ko jéem a galgal parce que moom day bañ bu la fay galgal bi rëkk sa diggante nga xam xam nga ni waa ji nga xamante ni daa yorat loxo ku bëgg a xeex ak moom mooy def xante lu xeer duur ci loxo ba boo ko bëggee gaaw a day léegi day comme kël mu am ab doole ñaaw loxo bi ni daa yora loxo ngeen jëkk bay xeex lu ngeen di njëkkoo njóotoo rek mooy jéem a dóor loxo ba parce que boo ko defee rek eggante ko seytaane noonu lay def am na koo xamante ni moom xam ni kii moom ay affaire yu jullee ay muuraaya ay nangam yooyu du ko fa jéem a man parce que seytaane xam na ni kii amul problème boobu seytaane dina ñëw gis ni waa ji moom dafa dafa dafa sàggan ci làmmoñ sàggan ci làmmoñ sàggan ci làmmoñam ba mu ëpp lu mu war a wax ak lu mu war a wax du ko xam seytaane mu ne alhamdulilah kon xaaral ma jéem a jaar foofu su ko musiba ja koy tàbbal sawara ëllëg bu amul sens làmmañam la lii moo tax saxaaba ni woon yent bi ndax ñun dinañ ñu jàppe li ñu def suñuy làmmañ mu ne ko waaw xasilat ko umm wa hal yakubbu nnaas fi nnaari ala wujuhihim la xasaydu alsinati moo tax du bëri ñoo xam ne buñu leen di dugal safara leen góodee ci seen làmmiñ la koy war a boxum kay seytaane dana fóon sa bakkan gis ni yow mii kat tayal moo la jàpp tayal tayal boobu day fexe dina tayal loo ci ay jaamu yàlla léeg-léeg nga jàpp bay waaj a def ñaar raaka sax mu fere ko la nga dem fa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala gis nga su ma ko toppee damay lim yu bari yow jàmbaar ji nag yow seytaane bu ñëwee xam ne moom xalaatul dina faj buntu neesu ndax xam ne doo ko def alhamdulillah du la fët ci buntu sol lu gàtt xam ne ni doo ko def du la fët ci buntu julli xam ne ni doo ko def yaa ngi koy def du la fët ci woor xam ne ni da nga koy def waaye seytaane bu dikkee day fóon sa bakkan bi xool bu gisee ni yii yëpp ay buntu la yu yàq mu ne kii daal gis naa ni buntu bi gën a garaaw fa la nekk muy sàkku xam-xam iblis li mu gën a bañ mooy ku xam ku xam la gën a bañ njaboot gi dañoo daje ni ko waaw sunu maam lan moo tax yow nga bañ ku xam ba ci borom xam-xam bu faatoo da ngay kontaan kontaan goo xam ni ñeneen yeneen yii doo ko kontaan mu ne loolu ngeen bëgg a xam ñu ni waaw mu ànd ak ñoom fekk benn labbe buy jaamu yàlla mu ni déglu leen gaa yi déglu mu ni ko eh est ce que yàlla mën naa lem àdduna bi kuppati àdduna bi dugal ko ci biir waaye xam naa laaj bi rëy ci moom mu ni ah lu ma ci xam iblis xaqtaay bi gis nga wedd na yàlla mi ngi nii yéefar la fi ne yéefar la wax na dëgg yàlla mën na nangam ngay sikk taat yàlla moom lu ñu la est ce que mën na ko rek waaw moo war a nekk kon ndax tëliwul dara waaye waa ji ñàkk xamam donte jaamukatu yàlla la est ce que yàlla mën na nangam mu ne ah lu ma ci xam iblis xaqtaay yi gis nga mi ngi nii jaamu yàlla bi réew yëpp nekk na bi yéefar te yëgu mu ne leer na gars yi ne waaw mu ne nañ leen demaat mu dem ci jàkka ji fekk benn borom xam-xam buy jàngale mu ne ko waa ji est ce que yàlla mën naa jël adduna bi yëpp kuppati adduna bi dugal ko ci biiram waa ji ne ko wax loolu dafa jar a laaj yàlla day ala kulli shay'in qadir di jeexal ne wax mu ne gis ngeen loo indi ci masala yu jaxasoo lu mu rëy rëy ak borom xam-xam rek la ko moo tax kii mu dee daf ma arrangé kon gis na buntu xam-xam dafa xam ni boo fa duggee xët jëfee topp ci su boobaa échec da lay daal di daal échec da koy daal di daal yow nag di nga jugee def lu jafe juge sa kër xaay yi lu koy la ma leen daan wax laay waxaat ba tey man day insha allahu yàlla aalamu bi dawahi wa dawafi bii réeg bi tey de yàllaa ko gën a xam waaye man de li ma gëm te fas ko ci sama xol mooy kenn ku fi ñëw ku nekk ci yéen mag ñi xaw ma gone yi waaye ku fi ñëw ci gone yi nga xam dañ koy xool waaye yéen mag ñi de ku fi ñëw ku ne man de gëm naa ni bëgg yàlla bu set lépp ci moo nekk ci xolam ak bëgg jëriñ loolu da laa gëm bu amee nag yàlla xam moom yàlla xam naa lii moom laa gëm ak moom mën a xew nag gëm gëm seytaane nag rafet na xadis boo xam ne bu wér la yéen yàlla beneen na ba ngay tuub ba ngay gàddaay ba ngay jiraat ba ngay nangam looy def rek day taxaw foofu naan ndax da ngay def nangam bàyyi nangam baara la nga rëcc ko ba keroog ngay baar bi nga jógee pour ñëw xam nga ni yow boo dikkee daa rek alhamdulilah ñu góorgóorlu nga fay fekk dañ lay jàngal kenn du la bàyyi ngay juum soo juumee ju gën ci la ah day xam ni loolu arrangé wu ko parce que yow boo génnee benn membre nga boo xamante ni da nga koy yàqal effort bu mu mën dana ko def léeg-léeg sax mën naa am bu seytaane ñëwee ci man nii lay jaar nga def lu ñàkk fayda ah loo xam ne sax gërëm baax ma dàqal la nga génn daal di fekk seytaane ko sabab lim bëgg rek mooy di ci def yow moo tax bis bi nekk ñu tàllal suñuy loxo di ñaan yàlla sono mu bañ a am cër ci suñuy wax bañ a am cër ci suñuy jëf dinaa ñëw ñu laan eh defal lii nga lànk saare man la bugal see bala ñu jëm daara fekk moo def pexe ya nga lànkee yow ngir bëgg na rek ay pexe am ba nga jógee wallaay li may wax di moom lu may inventé de xam gu ma xam idée ko ci pexeem ci laay waxee yàlla na gis a taw si yéen a ngi fi nekkoon di jàng jóge fi dem seeni pour dellu si waat ku ne nag di nga ëndaale lu ne waaye nag bu yeboo nam xam ne la fi newoon jógu fi la fi newoon fi ne maa ngi ñaan sama borom yàlla subhanahu wa taala jàngat jàngale day man fi lii ma ci yore bu mu soppeeku ila yawm al qiyama mën naa nelaw de mën rek bi mën naa nelaw mën naa jékki-jékki bu yàgg mu tayal laa mu fàtte baa mu ne ci yitte waaye bu jàng jotee nan jàng bu jàng jeexee jeex na nan def lii nan bàyyi lee mën xaj ba mun insha rabbul izzati du ma ci soppeeku bu soobee yàlla ndax togg nañ ko ba mu yor ndox ko yëpp bu demaatee ci taal ba xam te buñ ko lekkul mu yàq kon nag ngal la waay maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp moytu leen bunt bii seytaane man leen ci mbaamu man la ci way ma may ma moytu ma man la ci yéen a ngi ci lu rëy gis nga borom xam-xam yi ku mel ni imaamu nawawi day wax ni borom xam-xam yi dañuy juuyoo sax ci naafile yi ban moo ci gën ñu ni sàkku xam-xama ci gën benn waaye ngi nii ma ngay julli kee ma ngay woor fii ma ngay nangam fii ma ngay nangam toog di sàkku xam-xam moo ca gën ca yëpp toog di sàkku xam-xam moo gën ci yooyu yëpp léegi nag faw rek mu def ay pexe ngir moo xam góorgóorlu leen ci ngeen bàyyi xel seytaane moom du ñu bàyyi ñun mukk lu mu mën dana ko def pour yàqal la lu mu mën dana ko def pour yàqal la mos ngeen seen kër yi dellu si waat xam ngeen la nee seen kër yi comme ni ngeen xamee li nekk fii kenn ku ci nekk bu waxee ngir yàlla rek tegam fii ngeen di nekk ci biir daara ji gisoo télé gisoo rajo buy musique gisoo kuy meesu gisoo kuy sol lu gàtt gisoo kuy def lu kon lu dul suñu bàkkaar yi sol sowaan yi nga xam ne ay risque la lay doon kete te ba léegi sa baayit gaa ngi ci yow mën ta dañ ah bu leen ma nax waay wax leen ma lu ngeen jëlee seen kër yi kon li ma wax lu leer dama ne daara ji ci biir daara ji télé amu fi rajo bi musique amu fi caaxaan amu fi xawuñu ñu ngi jàngal di jàngalal di sol lu gàtt amu fi sol lu bon amu fi ay waxi mboosóora ci waxi tàngalangaay dañ ko fiy bañ ñoo ngi góorgóor lu ñu mën allahuma lu dul suñu bàkkaar yi soo soo yi nga xam ne ñu ngi koy jégal si ñoo rëcc su fekkee ci biir daara ji lañ nekkee nii ba pare baayit bi mën ta dañ wax leen ma lu ngeen jëlee seen kër loolu mooy kenn ku ci nekk day boo waxee sa yàlla rek tax xam nga nekk sa kër moom arrangé wu déedéet arrangé wu ñu saxat surtout jamono bi ñu toll nga xam ne jamono yi fitna la jamono yi bëgg làq ci la lu rëy lu gën a rëy nga am yàlla defal la ko taw ci junni junni junni junni morom bëgg ko te mënuñu ko am gis nga baat bii xam naa sàppi na seen nopp yi ndax li ma leen ko wax bari na waaye du ma dañ di leen ko wax parce que doomu aadama dafa bokk ci système bi ñu koy fàttalee mooy wan ko safaanab li mu nekk borom xam-xam yi ne wa bi dëjjiha tatabayyanu l ashyaau ñuul kukk mooy mën a tax ñu xam lan mooy gëlóoru weer taal seeni morom yu bëri ñu ngi bëgg lii ngeen am tey te mënuñu ko seeni morom yu bëri ñu ngi bëgg a nekk ci barab boo xamante ni buñ leen di fàttalee la buñ leen di dimbale la seen diine buñ leen di dollee la jamono bi ñu toll toll si jamono yi fii toll si jamono yi yàqute yàqu fas-fas yàqu jiitu wax ñu ëmb jëflante ñu yàq koo jëflante ci yéen daanaka da ngay yaakaar ne ab juif gënoon jëflante ko fekk waxu la julli la chine la kenn ku ci nekk firnde li nga war a tal mooy sama bopp sama bopp sama bopp sama bopp doy naa de yeneen ci wax allah fene firnde ñii jamono jooju wax ko ci lañ toll te subhanallah léeg-léeg doomu aadama dina am lu rëy rëy rëy waaye ndeysaan du ko xam ne ne shiddate zuhuri xafaar arab yi dañ ne li la jege ba mu ëpp comme sa xeexu suuf bi doo ko faral di gis nga xam day kenn ku ci nekk ci yéen lopp sax la fi am day def xam nga dem xamoo ko xaw ma ko xëy nga dem xamoo ko xaw ma ko yàlla moo ko xam loolu nag profité si éeg tamit xam tan xam ne xam si juróom yi profitool gaaw balaa yeneen juróom yi safaani ba ci toog fan yi paase damaa toog man ak Oustaz Kébé ñu ànd di dem Kër Massar am ku ko woo téléphone ni ko damaa dégg ni seen daara day jël ay jigéen ñi Kébé ni ko déedéet du man de xanaa ki ma àndal mu jox ma ko ma waxam Kébé xam ko man xamuma léegi kooku xam nga fu ko déggee Mauritanie Mauritanie la ko déggee ku góor saa ngi France mu téléphone soxna si ni ko ñu jubbi foofu ñëw fii Sénégal ndax loolu li tax ma di leen ko nettali mooy man dama ci amee iman man dama cee doolee koo man bi mu ñëwee fii ci fête bi mu laaj ma ma wax ko mu expliqué ma chaîne bi ni mu demee dama tiit ci yàlla ndax li nga yor ndekete di ko foyee di ko tël comme bal am na koo xamante ni fi ne bu ci kon da koy àmbale or la koy def man ma jàng ci lu rëy ma ne ndekete daal ci yëkkul li saa xëta te laa xëta li arab yi naan lu waay football sànni am na ko war a romb xor ko ndax moom la doon wër góorgóor leen ci ngeen bañ a ubbi seytaane bunt ci seen a góorgóor li ma wérti wóor ma mooy bis dana ñëw ci bis yi man dinaa réccu lu ma tere woon a gën a góorgóorlu waaye yéen a ci dingeen réccu lu leen tere woon a gën a góorgóorlu kenn ku nekk mën na jóge këram ak découragé indiwaale ko wala nga gis ñeneen sa biir kër gis nga ñoom amee liberté di wax coiffeusam ba di wax lalam ba diw sax moom jëndal nañ ko kër ci biir lii lépp ñu yépp gis nga li ko bi li nga xam ne moo la mën a découragé pour toog ci daara ji lépp aw ma lu may werante ci ñi ko ñett àddina kese la loolu moom yaakaar naa waaw nga may wax ma ne la waaw may suñu borom ne inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala maa jàpp addina tuur ko ay meuble ba mu fees dell ngir di ko taaral ngir ma teste leen xool mun te ne jii boo ko demee da ngay dégg ñu ne am na ñoo xamante ni dañuy tuub jóge Amérique ñu direct jàngi suñu seen njaboot jóge réew fu ne dafa jàngi ñooñu yaakaar naa ne moom yéen ak man yéen a ma gën a xam ne koom-koomu àddina ñàkk ñu ko déedéet man xam naa ñenn ñu ñëw ci daara ji ñoo xam ne yàlla dénk na leen tuuti koom-koomu àddina kon am naa yaqin ci fi ne ca loola ni fan jugee dàq fi ñëw te kenn forcé wu leen bi ñuy ñëw seen coobare la ça veut dire kon ak bëgg yàlla lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti ñu ngi ci xol man day ah maa ngi yaakaar ni li may wax du loolu ngeen wax ci jàngalekat yii toog day dende man defe naa loolu la di wax man de wallahi wa rabbil kaabati maa ngi ñaan yàlla sama dund gi li ci des su ma ko naree def ci lenn lu dul toog di jàngale alquran di ko jàng ak xam-xamam di ko jàngale ngir am ci yàlla wallahi ma dem dee fekk yàlla ma ko gën ñaan ko yàlla àjjal ci fekk ko xalaatuma ko xalaatuma ko ci kaw si benn nokk daf maa laaj li ma lan lu tax daara ji duñ def conférence xam ngeen daara ji ñu ngi bëgg a yàgg daara ji depuis kañ ay deux mille deux ba tey lu ko jiitu arab la woon defe naa ñu fi jàng kenn mës a gis ma def conférence mbokk mi laaj ma lu tax duñ def conférence ma ne ko tax ñuy def conférence conférence lan moo tax nit di ko def man sama yaakaar conférence li tax nit di ko def mooy lan mooy pour nit ñi gën a yëg daara ji pour ñu gën a am ay ndongo yu bari bu dee loolu mu ab objectif la man soxla wu conférence parce que man dama doyal sax ay ndongo sax man mbokk mi seede la ci démb démb la fi nit ñëw wallahi dima sarfu sarfu mbokk mi si sa sa sa seede la ci ma gàntal gàntal muy sarfu pour daa bëgg a ñëw ci daara kon ay ndongo moom bu dee looloo taxaw ñu def conférence man soxlaatuñ parce que jëru nga def conférence leneen bi mooy lan peut-être que ay ndimbal ñi ñuy def ay ndimbal ñëw ci daara ndimbal yi bis bu nekk bis bu nekk bis bu ne ñu ngi ñëw ci daara kon jëratul ñu def conférence du loolu ñaar ñetteel bi may tuumaal sama bopp ci sellal àllub neen di wutiwaat leneen lu xumb pour di ci dolli gisuma loolu lii nag ma wax nag bu leen jig ngeen jàpp ni mooy conférence baax waxuma loolu de dama ne man ci sama jëmmi bopp de insha allah daara ji di ko def xanaa su ma faatoo yéen ngeen def jàngalekat yooyu ngeen xam ne leen waaye man ci sama dund de insha allahu ah ñaan mu yàlla soppeeku du ma ko def dëgg soob yàlla ndax damaa jàpp daal quran bi ñuy jàng yaakaar lu mën a gën a laaf gën a mën a defar gën a gën a fe loolu lañu gën a soxla daal toog jàng jëfe xam jëfe lanu gën a yitte leen dul xam jëfe xam naa baat bi jëfe dina bool ci seen nopp yi waaye baat la bu am valeur xam jëfe na ma gën a yitte leneen lu dul xam jëfe ci biir feet bi ma toogaat ba mu yàgg kenn woo ma ko sax xam xam xam moom su mu woote risaatoo waaw defe naa noonu wax ne dafa dégg daara ji dañuy jël ay machine xam dafa nekk lu xaw a raar lii nag li tax ma dineen ko nit ñi dara de li tax ma dineen ko pour mu ngeen xam ndekete nit ki li mu yore seytaane daf koy oyofal ah non lii lay seet comme rien fekk déedéet seytaane mooy def loolu pour bëgg nga foye ko jóge fi fekk mi ngi lay arrangé nga xam day man mii di wax ak yéen àjjuma ba àjjuma laa dem Dakar yëg leen bis bi ma gën a bàyyi ci bis yi mooy àjjuma ndax saa boo génnee gis lu leen ñëw ko dégg lu leen ñëw ko ba tere ba yow li ma gën a yéen nag mooy keroog dama ko wax mbokk yi ñu jàng ma man leen seen tuuru àjjuma bii su ngeen amul sens lee ma dakkal parce que man dama sentir ni sama sama farlu samay jikk rek samay nangam samay waajibaati bis bi tax bisu àjjuma bi dara damay risque wooteel téléphone ci dama laa soxla fii kaay fii dugg fii génn fële temps yëpp lay yàq li ma bëgg a wax daal mooy ñëwaat ngeen dellu siwaat ngeen mbubb yi ngeen soloo bi ngeen di ñëw sumb leen ko delloo fa ngeen jóge mbubb yi ngeen soloon balaa ngeen dem du ma solaat leen ko de li may wax wolof yi fóot yi mbubb yi ngeen soloon balaa ngeen dem feet du ma wax solaat leen ko fóotaat leen ko ba mu gën a set ngeen dox koy lii de bu ngeen ko defee amoon na yàlla mën na leen dimbali ci dëgg yéen waaye bu dugg loolu ko seetaan mën na leen ko seetaan ngeen gàtt boobu mooy xaaj bu njëkk bi ñaareelu xaaj bi lu gàtt lay doon bi bismillah maa ngi leen di bàyyi loo woon xel bu baax rawatina li may wax nag yéen moom ñu la ko gën a mën parce que boo dem dafa am ay principe am am ay bëgg-bëggam am ay bañ-bañ li gën a gaaw ci jotale mag nit rawat na mag mooy defal defoo wala bàyyil bàyyi wala ñun nii la ko daara ci bëgg nga defee ko noonu kii moom yàlla moom moo ma defal kaw ci ci musuma ci kenn kersa bu doxoon suma diggante ak yow sax mën naa teetteeku te fekk lii koy teet dafa am loo xamante ni xoolatuma sama jëmm ji xoolatuma sa jëmm ji li may xool mooy daara ji ndax dañoo gën a wutukaay ci yaaba bu tënkee nii lañ war a def dañuy def nii lañ war a bàyyi nii heure bi la ñu dugg ci daara ñu dugg ci heure bi la ñu def nangam lañ def lu dul loolu moom jote ci moom du dara ci ma jàppal ci suuf nit ñi boobu lu ko ñu ci góobe daal ko sama beneen ba ci topp ci ñambaas bi mooy maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ak ragal yàlla mbaa xam ngeen lii ñuy wax lépp bu ci ragal yàlla àndul yàlla du ko nangu ne innama yataqabbalu llahu min al mustaqin yàlla nee na ñi ñi may nangul rek ñooy ñi ma ragal xam-xam nga bëgg wattaqullah wa yuallimukum allah booy ragal yàlla yàlla di la xamal beneen bi ci des maa ngi leen di dénk ngeen góorgóorlu seen diggante ñi leen di jàngal saa bu ñu demee ba xorma doxatu ci diggante nit ki ci koy jàngal saa bu ñu demee ba rusuma ko weguma ko comme ni ndongo war a wegee sëriñam ñaanaluma ko ah ba pare maa ngi koy lor wallahi la ma jàngal ma ci biir laa bu baax saa bu ma demee ba ci ma nekkam xelam àlliwu ci man wallahi la koy baax waxu doon góorgu leen ngeen benn loolu nag tekki lu mooy man jigéen jàmbur damay fëkk relation yi dox sama diggante góoru jàmbur waxuma loolu de li ma wax mooy mën nañu sekkante li ñu sekkante waaye ci xool na koy jàngal wallaay kooku dama koy àmbale comme or ñu mel ci man ndax kii mooy def ci man xam-xam kooku dama koy fonk ay yoon damay sujjuut di ko ñaanal yàlla bal salaf saalex ay ñoom sax damay gis ko naan yàlla sëriñ diw de bu aw fanam naree gàtt xanaa sax man nga wàññi saw fan defal ko ko sax ndax man ma dee moo ëppal njariñ xeet yi diw dee ndax diw bu dee rek mu ci baax ndax mi ngi am benn xeet ñoom àggoon nañ foofu est-ce que sujjuut yi nga ñaanal ko bi est-ce que ormal nga est-ce que jox ko sëriñ laajal sa bopp ak question question bi mooy est-ce que man sëriñ bi wala si def wala wala déet c'est la question laajal sa bopp est-ce que sëriñ bi xolam seet bi nekk wala déet répété naa ko benn bi ñaaw jigéen jëkkër posé question est-ce que sama jëkkër xolam seet na ci man wala déet jël leer bi bu amul te fekk mu nekk ci dëgg ci nga am dindi ko xajal ci kaw suuf bu yàlla yërmul Allah nga yàqul lu barke la doo ko jël ci suuf jigéen ci jëkkëram doom ci way juróom surga ci njaar ci déel ndongali ci sëriñ laajal question est-ce que kii xolam seet na ci man wala déet est-ce que kii merewu ma est-ce que defuma lu jaar naa yooyu yëpp da di ko lijjëm góor góor na di ko ñaanal yàlla comme ni ngay ñaanale ci nit sa bopp ndax boo ko ñaanale ñaanal sa bopp day tëppuwaat ci sa kaw li may jeexale mooy ngeen xam ne daara ji day daara ji insha allah jàng fi am ak toppatoo maanaam jàng ak liggéey moo xam sa waañ wa moo xam sa fóot na moo xam sa lu mu ci ma si doon daara ji moom bi idnillah ku xam-xam tàmbale fi mu yegsi bëri nga buy bëri nga buy buy buy bar bar bërëntalu buy bërëndu ci kaw montagne la boo ca tegee sa loxo dina wadd boo ca tegul sa loxo dina wadd rafet ci nag nga teg ci sa loxo ngir allah akara bu yàlla ne ñu waddal bari gëm nga ne man de bokkoon naa ci donte benn buux nga buux sax sa nit waaw man li ma ci jublu mooy bu fekkee daara bi dafay nekk nga jàpp ne jàng rek lekk naan te du ma wutee bi ah dama dund bi kenn ku ci nekk ñi ngi jàng di am siyaaba waaye fa jullit ñuy jàngee ma minaas ko mbaa ma bale ko ci siyaaba wana ko ma bale ko mbaa ma raxas ko ci siyaaba kenn dama root fa bale ko ci lii waxuma ko pour kenn def wala kenn bàyyi def man amila saalihan falyafalih wax sa bopp la ومن أتى بنار فعليها تتصرف له yàlla na ku nekk lay def la lay def maa ngi sàkk mbubb yi ngeen soloon indi suñu leen bàyyi fa ngeen mbubb yi ngeen soloon fóotaat leen ko moom set te gën a góorgóor loolu waxtu yi day def temps bi dafa gàtt de léegi dafa gaaw lool te jege te jege kenn xamul fan ngay def ku leen doo dir loolu def loolu du la fekk te loo defoon ci safaan rëcc ko lu mu koy tuuti kon nag góorgóor ci jàng alquran ci naafila ci guddi ci julli guddi maa ngi jeexalee xadis boo xam ne kenn kenn ci war na caa sonn yéen ci yàlla dina ne kenn talal ñi ngay góorgóorloo da ngay fay benn bis rek suñu borom yàlla kontaan ci yow yàlla daal di def benn déclaration mu woo jibril mu ne ee jibril kaay mu ñëw mu ne ko sama jaam diw doomu diw ak diw dëkk sa barab sàngam ci Sénégal ci misaal bu doon Sénégal la bu doon ci Bambilor mu ci Bambilor moom diw man yàlla bëgg naa ko allahu akbar allah man yàlla bëgg naa ko kon waxuma ne yàlla ñu bëgg na la waaye yàlla tudd ko tur rek dama ne loolu honneur la honneur la ndax ubay ibni kaab dafa yonent bi ne ubay kaay mu ñëw mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla moo ni ma yow yonent bi wool ubay ba mu ñëw nga jàngal ko lam yàkku ni mu dégg ubay jubluwul jàng ma dañu ko yàlla sama tur la tudd mu ne waaw toog di jooy lan lay jooy ndax yàlla tudd na turam loolu loolu moo rëyal ci ñoom am ngir mën yàlla subhanahu wa taala yéen ci yàlla mu ne yàlla mu ne jibril wëral asamaan yëpp nga wax leen malaaka yi subhanallah xoolal yàlla léegi jàmm bu doy bi nga xam ne léegi la génne ci wane rek jàmm bu doy bi nga xam ne mi ngi nii saway léegi la ngar fii di def yëpp jox ah ndax nit la nit nit lay def yàlla mu ne malaaka yi yàlla nee na bëgg na jiw doomu jiw ak jiw yéen ñëpp bëgg leen ko la hawla wala quwwata illa billah gis nga yàlla def ko fa yudaa lahu alqabul ci àddina yàlla defal ko li ñuy tuddee xabul xabul mooy la muy doomu aadama yëpp kuy bëgg maa xam nga ne nit ñi sax danañ la bëgg su boobaa te nga gis nit ñi bëgg la loo leen defal dara yow defaloo leen dara amoo dara wala taana boo xam yaa ngi mën a yem ah ba pare yàlla def yàlla bëgg la malaaka yi bëgg la doomu aadama yëpp bëgg la lan mooy sabab bi mooy góorgóorlu gi nga doon góorgóorlu ci say ay baax mu ngi ñaan yàlla def mu ngi yor soxla wa safaati bi loolu yàlla yàlla defal ñu loolu wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillah